طوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما وفي السور والذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضيق وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد الاتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحصد والعدوان بأن لا تفارقوا مغفر لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثوابا ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاض إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه بآله وصحبه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 lu ñu cee def yàlla na ko yàlla nangu sëriñ baa ngi ñu ndokkeel bu baax a baax di ñu ñaanal nii ñu ko fekkee ren ñu fekkee wat ko déwén gannaaw bu ñu santee suñu boroom ci ñaan gi ñu ko ñaanoon daaw fekkee ko ren mu may na ko di <clears throat> ñaanal ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi nekkoon ak ñun daaw te fekkee wuñ ko ren yal na leen yàlla yërëm ñi wéree di it yal na leen yàlla yónnee ak wér di ñu dénk nag la sëñ bu mag bi daan dénkaane te xaaj Mouhamadul Fadal daa ko jottali ci bis yu ni demee ñu ngi nuy dénk nu sax ci ak jub sëñ bu mag bi laaj na ñaar ñoo xam ne kenn ka ab sëtam a ngi fii toog ci jataay bi ne leen ci lu ngeen nekk kenn ca ñoom ne ko lan ma digaloon ca laa nekk kenn ko ne ko maa ngi déglu ndigal rek mu ne leen man de foofu fépp nekkuma fa man dafa ma nekk mooy xëy ci farata gontu ci sunna dallu ci man mandub ak mustaxab yéen ñaar ñii de bu ngeen demee fu ngeen dem na ngeen leen jotti na leen gannaaw bu ngeen ca jaaree jëfandikoo ko lama leen dénk mooy yéen ñi sax leen ci ak jub ndax ku jub kenn du ko yàpp daan ndax mas ngeen dégg gone yi wàcc leen ron gi ñu ne déedéet mu ne garab gune da ngeen dégg gone yi wàcc leen garab bi bam dess ron gi dan ne ron mom la ko may gone yebuko sax sakant mak, sax yebuko sakantuma mak dana ciow ak fu nek rek ron lay doon yalla ñu ko yalla déggloo dan na leen su ngeen demee na ngeen jëfëndiko deug deug iman deug deug l'islam deug deug l'ihsan deug deug l'islam deug deug iman moy sa pas-pas sa borom dëgër ba buñ na la won kay ji ñu ray la ngir yalla nga nang nako doomi Seydina ibrahim ci nang won bayam ba nang ko Seydina ibrahim alayhi assalam neena na ngeen fexé ba nek ci l'islam l'islam nak moy bul bayyi dara lum santane ci ak jaamu yalla mo xam muy wajib wala mandub farata la wala sunna la na ngeen saxit ci l'ihsan su ngeen demee l'ihsan nak mo loy def rek yalla tax di ko yalla yàlla ne ku sax ci iman da dana dox si digganteem ak ku kéfer yàlla ñu ci yàlla musal nee na ku sax ci da na dox ba do mën def lu dul jaamu yalla dong ngay man te yoon wo moy yoon wala yobbu aljana yalla ñu ci boole na ngeen sax ci lixsaan it lixsaan nag dox sa ak bokalé gu feñ wala gu neub wala sax ak nafiq yooyu yëpp yàlla nañu ci yalla musal bokkaale nak ba ci gëna tuuti te gëna fess nit ñi gën ko fonk ci jamono ji ñu tollu fonk ko lool lu way di def jiri ko ba ñepp degg ko ñepp seen ko su ko ñepp nak soko ko ba ñepp degg ko seen ko nak su boba bu fay jotee na sété ñam ko doon wan waye bu mu ko wan suñu borom ndax wu ci dara lehsan nekku ci na ngeen takko yit ak ku ngeen dajeel ngeen laabiire ko la ngeen xam ci lu baax te yéeneente lu bax suba ngor ta baña tayal ci dara lu jëm ci lu bax jinkane bobu nak serigne bi mi ko don dundu bu baax a bax mom serigne bu mag bi roye ko ca sangam bu tedd ba sayyidna muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. mi nga xamne ñam defaron sa su nek ñuy wane aw yoon wuy joxañ fa alquran jëm ak fa yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sallam di bu ma ko am na ku siiw ku ñuy wax Omar ibnul Xataab am na jamono yoo xam ne moom la jullit yëpp jaayanteel dafa am bis muy julli ca jàkka ja taxaw foo xam ne ñëpp koy séen ñu tuddee ko xutba muy wax ak nit ñi ba yàgg mu ne leen yéen nit ñi sama soxna su tudd Umu Kalthum di doomi Seydina Ali ibni Abi Talib ngaal sii ma yore soxnas buruk rum moko ko yone la ko waral moy sama soxna sidi um kalthum da yone woon soxnas bur bobé ay hadiya yum ko don jox tandarma fuddan ak len ci ay geut loolu teranganat. waaye ba ko soxnas buurub ruum di delloo teranga nak daf ko duyel ngal sosé bam fess del ak wurus ni ni lu ngeen ci xam jàkka ji na rëg-rëg ñëpp ne ko moo ko moom ndax moo joxe woon nga ñu delloo ko ko naa Ali mi nga xam ne mooy wajuru soxna Umu Kalsum moom i jóg taxaw ne ko am naa ci kàddu mu ne ko lu ci sa kàddu mu ne ko ngal soo su fees dell ak takkaay wurus ak ay bokkam na nga xam ne soxna su buuru bu joxu ko sa soxna jox ko soxna si Omar bi Xataab waaye soxna si amirul mu'minin la ko jox xalaat ba nag mooy jël ca lu tolloog la mu yónnee woon soxna su buuru bu Room li ci des lépp nga def ko ci baytu maalil muslimin Seydina Omar ibn Xataab ne ah lii Ali ibn Abi wax day loolu laay def daan ne bu woon ak Ali bu yàgg ndax sañ nga ko ak man nga ko lañ cay jàngate nag mooy euh, léebire googu Seydina Ali ibn Abi Talib bu ne woon doomam la Seydina Omar yore dana xo mën naa xool takkaay yooye mu yor lu cay doon wàllam waaye da doon wax rek te yàlla tax xamal ko ne ko bu dul woon soxna su amirul muminin du am lu muy séq ak soxna su buuru bu Róom di ko yónnee as ngaal ba dell ak i takkaay kon boog lañ ciy dégg mooy ku nekk lam yor na xam la ko ko jox na xam ne ko ko jox ndax moom ñëpp ko bokk lam bokk ñëpp nag na ciy diisoog ñëpp lam moom yoonu kenn nekku si na ko fonk sañ na ca lu ne ba mu des yàq ko la yoonam nekkut mu maandu ca kàddu yooyu sëñ bi waxoon nañ ko jottali di ñaan suñu boroom ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal neena mi nga xamne moy ab serignam te muy lu wër ñun ñëpp ñu bokkaat fi daw euh dewen dajé won nañ fi daw yalla ñu fi bokku dajé dewen nay bi nga xamne mom lañuy jublu ci it yalla ko suñu borom def nay bu barkel bu woom ñi nga xamne ne it leneen lañ dañ yëngu te bokkut ak dem ci ay tole ko dik lepp suñu borom barkel ko te daf ci seen mur sëñ bu mag bi nak neena won fu dara nekkut mën na ko faa def fu dara nekk bëriwut mën na koo baril fu dara bari bu ko fa fekkee mën na ko faa yàggal lool donte dara saxu fi kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di di déwénal ñëpp